asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum télévision Lougaré TV asalaamaaleykum yow ñuy suivre tey ñu ngi fii ci stade Amadou Barry ñëwaat ci bis bu spécial sport la jeunesse rek lu Lougaré moom du tegg loxoom saay su nekk rek mi ngi dugal loxoom bu baax a baax ci xowum jeunesse bi euh, ñu ngi ñaan yàlla suñu yàlla suñu borom ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexalee ko alhamdulilahi rabil alamin tey ñu ñëwaat bis bi spécial nawetaan zonal comme ni leen ko waxee woon rek rugale lugare nawetaan lugare nawetaan nag àndoon nag suñu télévision dem seeti ay yi comme ni ngeen ko xamee ngeen seetaan bu baax ñu dugal ko ci youtube bi ay see déggoo ak ay see euh, fiñ mic ay see manko bi euh, fàttali rek waroon nañ dugal image bu ay see manko mais après dinañ dugal vidéo bu ay see manko euh, ñi ngi jéggul ndax problème technique la tey ñu ñëwaat suñu première zone 1 diggante alliance ak eh, Fadia genta ba ñoy joué sen première heure ni demb jour na warona am mais ku ne xam na taw bi taw bi moo tax démb eh, match amul won tay amna tay fi ci stade amru bari digënté eh, actuellement ni Fadia moy football ni ak alliance alliance mo mëne 2-0 première heure la ah ñi ngi joué premier mi-temps deuxième heure bi nak mu nek match spécial diggante ASC Manko ak fiñ mi lugare TV wax ngeen koy suivre bu baaxa baax. dina wane match bi en direct ñu nekk fii ci stade Amadou Barry comme ni leen ko waxee woon ni leen ko diggee woon rek digga borlo tey di ngeen am ay image am solo ci wàllu nawetaan fii seen télévision Lougaré TV ñu ànd ak suñu ay caméraman ngeen seetaan ay réaction seetaan ambiance seetaan match yu am solo fii ci stade Amadou Barry ORCAV bu Guédiawaye à bientôt léegi léegi rek ngeen suuf leen teggi seen baax ñu ngi lay ziar. di la bu mën a laajoon sàng laa lay laajaat rek même chose quoi dañ gis match yomb ci yéen euh, li ngeen njëkk am compétition ci phase nationale yi waral wala équipe yomb ci yéen. non adversaire yombul je veux dire que peut être ñun suñu avantage par rapport ak ñoom ñun dañoo joué. sept matchs dañoo joué sept matchs ak joué benn match régional match de poule ak six matchs phase régionale donc l' espace

di gérer match te di gagné suñu match. Mhm. seen seen deuxième match suñu fàttali ngeen pour le quatre ngeen. Mhm. seen deuxième match kan ngeen am. suñu derby lay doon parce que Daaru moom ak euh, toujours alliance day doon derby quoi. bon pas derby mais je peux dire que bête noire la parce waaw mu nekk derby. waaw waaw bu ko gagné sinon ay nul ñu ñu gagné quoi donc on peut dire que voilà mooy loolu. fàttali leen sa tur ah, waaw. man la Mounir Sonko. Mounir Sonko waaw coach adjoint Ablaye Ablaye Ablaye kaay ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaleykum salaam loo def ça va. fàtte euh, ñi seetaan nga fàttali sa tur rek. Euh, que nga présenté wu quoi. Abdoulaye Diouf adjoint coach ASC Fadia. ASC Fadia ñu gis ni vraiment match bi premier mi-temps dox na seen premier match yéen ak euh, Alliance bi ça tombe juste ngeen égaliser ngeen remonté 3-1 lu waraloon premier mi bi match bi xaw a yomb ci waa Alliance. waaw parce que ñoom dañoo am expérience loolu moo ñu xawoon solo nag te ñun ñëw si terrain bi mhm. bi di jeex incha allah jàpp nga ni yow équipe bi dinañ am réaction balaa mi-temps bi di waaw dinañ remonter gën a avancé am mhm. naa yaakaar ci équipe bi quoi mhm. waaw ni ñu gën a am naa yaakaar ci équipe bi quoi waxuma match bi sax mais xam naa ni sama booy moom mooy waaw ñu gis nii bon da bokk poule bu xaw a danse tey jii seen premier match bu leen defet est seen yeneen que ni war ngeen ci meuna a génn ou pas wa war nañ ci meuna a génn ndax man craindre yenen équipe surtout alliance mi gaay dañ ko daño taxaw ni rek mais craindre len quoi peut être boy ño premier match crispation bi affaire yoy mo len japp rek gëm naa dinañ gëna avancer avancé dinañ gën a nga fàttali ni ce ce place fi nga tok ni quoi man mooy adjoint coach bi mooy coach Alioune Balé Diallo mooy adjoint coach merci ñu ngi ziar jaajëf salam ma ngi leen di ziar ni ce tour rek nga fàttali ko maa ngi tuddu Samba Diagne di délégué zone 1 Guédiawaye ñu fàttali fi yéen a fi toogal waa zone. marché bi démarré na première heure bi diggante euh, alliance ak euh, Fadia gente ba tey seen taxawaay fii ngeen toog nii di toogal fi zone est-ce que norme yi war a tax marché bi war a démarré jaar na ci yoon ci ñaari ay yëpp. waaw en fait waaw lépp li nga xamante moom lañ ko war a defee pour mu match yi jaar ci yoon def nañ ko man dama fee nekk en tant que délégué de match euh, yaakaar naa ne avant tout mooy damay jéem a fexe ñaari côté yëpp ba mu bañ a am benn problème ba li ma fi nekkee bi lan moo fi nekk yan jafe a fexe nan la ko daal mais pour l'instant nii ba fi ñuy waxee yow nii ñu ngi doon reprendre deuxième mi-temps bi bi mi ngi déroulé sans problème avant équipe bi dugg ci def nañ ay présentation est convocation amul joueur yoo xam ay a xam amul benn réserve quoi. amul dara parce que évocation après match mais pour l' instant amul réserve amul dara lépp déroulé na ci normal équipe i amul benn coppite diggante daaw ak ren. waaw gi mooy peut-être dafa teel génn. par rapport ak daaw ndax daaw daanaka booy ñëwee sa premier match daanaka 18 euh, yëpp la nekk ay LD la ñuy joué par rapport ak ren nag avant premier journée yaakaar naa équipe ñu ngi seen licence complète merci ñu ngi gërëm di la sant

Sans rek ñu koy rappeler boy avant match pour rappeler leen que euh, match poule de 3. la donc ben moi gagné. ñaar ñaar ñi ñaar ñoy qualifié te kuñ ci gagner ce premier match euh, tu a de sérieux problèmes donc euh, té ñu ne nañu faté euh coupe buñu gagné c'est passé actuellement on est l'équipe à battre ñëpp dañuy bëgg gagné donc suñu benn match dootul méttiti mhm. dootul dootul yombati mhm. donc moo tax booy psychologiquement ah liggéey nañ ak ñoom ci ci ci ci domaine boobu mhm. te xam naa ne booy gën nañu gën nañu euh, motivé wu pour vraiment prouver waat que bon daaw du hasard lañ jëlee coupe bi dañuy ñëw pour confirmer te booy je je pense que très bien tey booy dynamisme boobu la ñu ñëwee tey te loolu la yaa ko waxoon sànq wax nga ko léegi nee nga euh, pour le trois là tay ku ci jël défaite ci ñaari équipe bi rek. Euh, sa sa dernier match day metti est-ce que lolu mentalement def ngeen ko ci bop xalé yi. waaw waaw non boy ils sont conscients parce que euh, boy ay ay compétiteurs lañu yag nañ football ay joueurs yu am expérience lañu am. Mhm. xam nañu enjeu bi fu mu toll donc ñom ñep euh, ñu ngi concentré wu ci loolu. te ni bon euh, ci match bi dinañ gis ne boy ay boy yu déterminé ay boy yu qualifié ñoy jouer ni waaw donc euh, c'est ça quoi. tactique de bi ngay 4-3-3 4-4-2-2 wala. tey ban tactique de jeu ngay indil ay say manko. bon ñun nak bon 4 4 4 4 2 lañu indi. waaw 4 4 2 lañu indi donc comme nous ma len ko waxé rek ñun instant yi parce que nawetaan temps c'est pas le beau jeu bu mo koy gagner loolu lañ doon rappelé booy nee nañ fighting la jom fulla ak fayda donc ñun daaw à partir suñu quart de finale nuñ ko joué euh, rythme boobu suñ ko continuer di joué amul benn équipe bu ñuy tëë fii donc mooy pressing ci kaw équipe bee duñ ko bàyyi mu joué suñu ballon bi ñu jéem football. Mhm. donc merci Koursou ñu ngi lay jaajëf maa leen di fay maa leen fay bu baax. di la jaajëfal di fàttali ni yow ci bokk ci ñi entraîneur ñi entraîné équipe Manko nga yor fàttali yaay Tafa Ndiaye defoon sa carrière ci ASC Manko tey ñi nga yor équipe bi ngeen war a joué seen match de vétérie rek fiñ mi di fàttali ni euh, ren ji ñëwoon ngeen bokkaat ci compétition bi mooy nawetaan daaw yi ñu àggale woon ngeen ñëw ñu teel leen éliminé est-ce que Bion en tant que coach préparé nga say jour ba tax na tey seen première sortie bi seen diggante ak euh, fiñ mi mën naa ne derby la est-ce que tey préparé nga xale yi bu baax a baax. ah bon di leen jaajëfal di leen jaajëfal ci di leen jaajëfal bu baax di wax ne vraiment nawetaan moom euh, moo am ak ñàkk la rek. Mhm. parfois da ngay mën équipe bi doo ko gagné parfois nga mën équipe bi gagné ko mais de toute façon li ñu war a def daal def nañ ko. Mhm. bu dee ci côté dirigeant def nañ li ñu war a def bu dee nañ recruter nañ ay joueurs. Mhm. comme d'habitude comme on a l'habitude de le faire. yàlla nag mooy may ndam. dañuy ñëw rek sabablu li ñu war a liggéey tamit liggéey nañ ko. je suis l'adjoint may adjoint jii jii di mooy principal maay adjoint mhm. mais de toute façon chaque jour que jëfee ñu ngi liggéey ñu ngi ñaax booy yi ñu ngi mobiliser waat équipe bi mhm. li ñu manqué woon daaw nag yàlla def na demaat nañ utiwaat loolu peut-être nag euh, euh, nawetaan moo demee noonu uti nañu nag indi nañ liggéey nañ pour indiwaat ko tégaat ko ci sur le plat. Mhm. léegi nak yalla moy maye ndam dañuy ñaan yalla rek yalla may ñu ndam dal par rapport ak équipe bu daaw bi est-ce que biñ doon coowee manko daaw manko manko parisien yi xam nga recruter est-ce que ren jii yaakaar ngeen équipe bi daaw bi ak ren ji ndax amna changement. équipe euh, dina am chaque jour chaque année moom am changement. changement moom euh, chaque jour day am. mais de toute façon li nga xam ne lool la ñu manqué woon daaw loolu la ñu utiwaat. ba pare di xaar di ñaan yàlla yàlla dañu may ndam parce que tamit football loonu la chaque jour club yi tam noonu la da ngay uti li nga manqué di ko indi di ko renforcer li nga am mhm. chaque jour noon lay demee mhm. léegi nag yàlla moo xam daal mais ñun li ñu war def mhm. def nañ ko mhm. waaw dirigeants yi macha allah li war a def def nañ ko mhm. joueurs yi tamit li leen war a wax wax nañ leen ko léegi nag le reste mooy bàyyi leen ñu xool quoi ci bi terrain bi na dégg na seen yenn joueurs yoo xamante ni dañ dem dañ dem dugg hivernal euh, doon naa ko dégg ci gars yi ñuy wax am na joueurs yi dem hivernal am na joueurs yoo xamante ni ñëwuñu bokk est ce que tey ji nga dëggal yow loolu que ni am nga joueurs titulaires yoo xamante ni dañ dem dugg hivernal yow mi en tant que coach nga ko dëggal ou pas non côté bobu mom amo ci limay may parce que dañ ni effectif lañ am dañ am effectif ku fi ku dem hivernal peut être buñ la sëkk la bayé di bo ñëw di nga mëna jouer peut être buñ la bàyyiwul mëno jouer légui nak ñun am nañ effectif bo xamni war nañ mëna jouer war nañ mëna am buñ fu nekkul war nañ mëna jouer dal waaw foofu moom amuñu luñ fi luñ fay tiit man ko ñu ko xamé won vraiment ay 4 4 2 4 4 3 tay tactique des jeu bi ngeen wara indil fiñ mi tay en tant que coach ban ban ban ban ban taxaway ngeen wara taxaw seen digënté fiñ mi

amna yo yoo xam ne moom mun wax peut être mom mën mom fu nekkon mom principal bi mom mën na la ko wax mhm. mais amna côté bo xam mom bu bal bi dawe di ngeen xam liñ fi indi mom dañ ko ruus sen match dernière yéen ak doole mhm. lolou motax mën ta mënu tok ci ban wa dafa amone suspension daw dafa amone suspension daw ren moy premier match bi malgré mu ngi fi mais sori wul parce que mu ngi à côté parce que ñoo defandoo lepp ñoo entraîné no boy ñun ñoy nek tout chaque jour ñoy nek légui te tay la même chose mu ngi fii à côté du sori quoi légui nak kon amna yo xamni xam ni mënoo am na tamit day melni ni mu ngi fi dal parce que li moy li wax boy yi mel na yéen yéen a ko indiwaat ci ci équipe ci équipe bi mhm. comme kuñu kuñu carton la amone mhm. légui tay yéen ay gagné pour mu ñëwaat comme automatique mat match lay toog mhm. léegi de toute façon ñu ngi xool bu fekkee gagné nañ yàlla dina def mu ñëw mhm. encadré waat équipe am mu def lu ñu doon def rek waaw mhm. ah, ba léegi ba yàlla xam ne li mu def daal nga fàttali ñu sa tur yow yaay ba ah, may Tafa Ndiaye adjoint Djili coach Manko merci beaucoup Tafa jërëjëf kontaan nañ gis nga musique yaa ngi ziar di di la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi nga nga nuyoo quoi. maa ngi leen di nuyu yow moom xam naa ne sama doom nga xamoo sama jarbaat nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen gis naa nag liggéey bi ngeen di def. Mhm. maa ngi koy suivre di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. ñu fàtte ni yow nga doon kilifa ci ay ASC Manko nekk dirigeant bu am solo ci équipe bi mhm. mën nañ ne yow ci kër bi nga bokk. Mhm. tey jii nga indi xale yi ñu doon say say say say jour nekk say doom. vraiment nga indi len tay ci sen marché bu ñëk digënté mak fiñ mi poule bi nek poule bu doy war bu xaw a difficile poule de trois la tay arbitre siffle rek équipe bi songu ASC bi ñëw attaquer vraiment ref ay réaction ba tay ñu mëna 1-0 tay lan mo waral ban préparation ngeen paré ñëwaat ni ak doole parce que xam nga fiñ mi dañu nek équipe bo xamné ne xamante ñun ñëpp parce que daanaka njabot gi la parce que mën na sax bokku na fiñ mi parce que ñafa nek samay rak lañu samay xarit lañu kon xam nañ leen bu baax xam nañ tamit ñun li ñu yor parce que li ñu yor wane na ko da koo wane te mu te fiñ mi xool nañ ko li mu wane moom ba jël coupe bi ñun li ñu wane xam naa ne moo ko gën ndam nag yàllaa koy joxe mais li ñu liggéey nii pour pour gagner film bi ah, ragal naa ne balaa match bee jeex moom dina gën a leer naa. dina gën a leer di fàtte nii parce que dañu gis léegi léegi muy feeñaay mu nekk jour bu am ci Manko en chaque fois moom bu suis rek toujours Manko day ay problème te moom bu toujours day régler problème bi vie Ndiaye moomu laa bëgg nga wax ci moom tuuti. bon vie Ndiaye bon sant bi la newoon sant bi la newoon ñëw Manko ren sant bi sax soxla nañ ko te dem kon lu ñu am lu ne war nañ ko mën def ko ndax ngor mu am parce que nit jóge na foofu jóge na ci équipe def fi lu baax ca déwén sa mu dem mais ren ku ne topp nga ko te mi ngi toog kon loolu ñun duñ ko fàtte kon xaj na suñu ñaan boobu ñuy ñaan moom moo koy wuy si nii xaw ma dégg nga li may waxam déet ñaan gi ñuy ñaan ñun xañ na moo koy moo koy wuy si nii parce que ngor gi mu wone ñun dañuy am yéene fay ko ko looloo waral leg leg réussir yu ëpp yu bari mu di ko am. wax nga ko sànq nee nga premier mi-temps bi ni mu demee ni deuxième mi-temps dina gën a leer tey jii bu leen yàlla maye ndam su fekkente ni seen deuxième match gis nañ pour bi dafa xaw a métti mu war ngeen war a amaat déggoo est-ce que préparation bi da ngeen di gën a da ngeen di gën a ah confirmer seen taxawaay. mënoo koo wax parce que deuxième match dañ deuxième journée bi dañuy exempté il faut ñu xool résultat boobu xam nan la ñuy taxawee ci résultat bi la compte taxawaay taxawaay suñ suñ deuxième match ñun ci résultat déggoo. fiñ mi ci la ci lay sukkandiku daal. ren gis nañ nawetaan bi ak nu mu démarré nii amagul coow mbaar doo mën a ñaax supporters yi ak ay yi ñu bañ a coow balaa muy indiwaat la amoon daaw. boo gisee ma wàcc nii sax loolu moo waral parce que bokkuma sax ci délégation bi mais bañ coow moo tax ma wàcc. pour mën calmer yenn situation peut-être xagn na amna lo xamné dinañ ma ko rusé moo tax ma wàcc nii mais waruma won sax wacc loolu motax nak ma wacc pour coow lolou ngay wax. fàttali ko waat sa tur nga président bon Mamadou Diouf dañ koy wax Petit Pain golou manko ancien bon foofu daal laay. merci grand kontaan jere jërëjëf. télévision internet ngeen gis ñu nekkoon direct bi actuellement wacc pour jël quelques réactions ànd ak Mamar dien comme ni ngeen ko gisee ni ah ñu jël quelques réactions parce que fii mooy fii mooy fii la waa Manko mooy seen banc manko ngeen gis supporters yi nekk nële di préparer ah, vraiment gis ngeen ñoo mëne manko moo mën a gum 1-0 ngeen gis supporters yi nekk nële ci kaw ñu ngi dem ànd ak Mamar jéem a dem jël beneen réaction le temps que ñuy dem ci direct bi fële ci kaw le temps que ñuy dem direct bi Mamar kaay jëlal ma tuuti ah, waa zone ñu ngi fi toog mooy délégué yi ñii ñoo gérer mbir mi ah premier mi-temps bi jëloon naa réaction bi fii deuxième mi-temps bi ah, di di di laajte rek que yéen. tey jii asalaamaaleykum. di leen jaajëfal di leen nuyu ku baax kan mooy délégué match bi. délégué ah. délégué deux minutes rek deux minutes deux minutes deux minutes délégué. Khalil ñu ngi lay ziar mbaa yaa ngi ci jàmm ñu ñëw si deuxième match bi premier match bi jàll na diggante alliance ak fii bi ak euh, Fadia Gente ba. Mhm. alliance gagné ko. Mhm. deuxième match bi en tant que délégué est-ce que.

c'est tout à fait conforme normal donc ça va quoi il y a pas de souci. donc amul benn problème quoi. amul évocation amul réserve amul dara. évocation loolu après match là, loolu moom mënuñ ci wax réserve moom la ñuy def avant match amul. amul amul benn cas ok quoi ok administrativement le match se se déroule bien. ok merci ñu ngi kontaan nañ trop si yow jërëjëf. waaw gis ngeen ba tey ñu ànd ak Mamar Dieng. ngeen sur match bi démarré na noonu ci diggante ay say manko ay say fiñ <laughs> ah gis nga balon baa ngi noonu di daw liggéey match bi démarré na ah, gis ngeen vraiment excentré bu manko ngi noonu ah, ah, Vieux Ndiaye mi ngi noonu moo dugal premier bii bi moo dugal bii bi njëkk bi nekk ci ci match bi parce que bu démarré na dégagement pour ASC Manko Abdou caw dégagé na ballon bi naar moo yor bëkk na ko contrôlé na bal bi wàccee na ko comme day dafa mel ni ab ab ab Dalaas Diouf buy football ah, waaw fiñ mi ñoo yor ballon bi noonu gis ngeen ñu ngi contrôlé dugg na ci biir axe bi bal bi génn na génn na 6 mètres non la arbitre bi wax. Mhm. course ñu ngi ziar course 1-0 mi waaw waaw non 1-0 la gis ngeen ko nu mu demee parce que euh, on a suñu góol bi encaissé na biir boo xam ne kenn xaaru ko woon quoi. donc mais euh, match bi jeexagul incha allah yaakaar nañ ni ñu ko génnee. réaction dina am léegi léegi. non dina am léegi incha allah. jërëjëf merci beaucoup. Ah, gis ngeen gis ngeen noonu fii mooy banwu fiñ bi xanaa ko fii mooy banwu fiñ bi sama gars yi ziar nañ numéro 9. ah gis nga ballon baa ngi noonu di daw liggéey match bi démarré na ah, gis ngeen. vraiment excentré bu manko ngi noonu euh, euh, Vieux Ndiaye mi ngi noonu moo dugal premier bii bi moo dugal bii bi njëkk bi nekk ci ci match bi parce que bu démarré na dégagement pour ASC Manko Abdou Thiaw dégagé na ballon bi naar moo yor ballon bëkk na ko contrôlé na bal bi wàccee na ko moom day dafa mel ni ab la ab ab Dalaas Diouf buy football waaw fi mu ñoo yor bi noonu gis ngeen ñu ngi contrôlé dugg na ci biir axe bi bal bi génn na génn na 6 mètres non corner la arbitre bi wax. ñu ngi lay di la félicité bu baax ñu gis ndam li ngeen am. Ah, sang da nga am benn wax boo waxoon ne vraiment li ngeen liggéey ah, da ngeen ñëw rek pour appliquer parce que da ngeen nëbboon seen bopp. lu waraloon nëbb bi quoi. waaw parce que euh, li ñuy wax ne ku yor du saqat. Mhm. boo gisee sànq nag waru ma ci woon a mhm. parce que xam naa li ma liggéey xam naa li ñu uddi. Mhm. parce que li manqué woon ñun uti woon. te yàlla def bi ñu ko utijee am nan ko mhm. euh, faux pas nag mënul ñàkk ci compétition boo gisee wax loolu mooy ni mu demee daaw ak àggale bi mhm. ak cassure bi ak àggale bi peut-être nag biñ xoolee xam ni am na loo xam ne des na ci équipe bi mhm. ñu dem utiwaat loolu moo indi lii tey lii nag lu ñu dencoon la préparé woon ko mun bett ma woon quoi man boo gisee nang bu mu mujjoon prononcé wu mooy ban bettu ma parce que xamoon naa ni lii laa fiy jëlee parce que tamit satisfaire naa supporters yi gërëm naa dirigeants yi ñëpp tout le monde mais kontaan ci

de fur et à mesure dinañ ci xool yeneen matuwaay ci jël bu fekkee dañuy jël du joué ñu xool lu ñuy def bu fekkee dañuy resté suñu terrain tam ñu resté suñu terrain seen match bii di ñëw da a daj ak déggoo waaw waaw kon dara mobilisation rek mobilisation comme d'habitude rek li ma la wax rek mobilisation la defaat woote waat waxtaanaat ku néew ku nekk dugal sa loxo ñu defaat liñ defoon rek ba amaat liñ bëgg merci merci Tafa ñu ngi lay gërëm di la sant waaw ngeen ànd ak seen télévision Lougaré rek Lougaré attaquant bi muy Vieux Ndiaye ngeen gis tey jii euh, moom moo dugal biir bi ah Vieux ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa leen di fay di leen sant ñu am lu ñu seetlu ci ASC Manko Vieux Ndiaye chaque fois bu manqué ci équipe ASC Manko day am ay problème yow lan mooy sa secret ba boo ñëwee ci match rek en fait dinañ dinañ gis la vrai Vieux Ndiaye. Eh, Manko la ñu Manko. ah maa ngi koy wax dëgg fa yàlla que équipe bu mag la moom. dama ko nëbb. lépp lu jour soxla moom dañ ko koy defal muy nga feebar muy nga am problème dañ lay jàppale. donc lu ñu leen defal lu ne dañ ko war a def yàlla na lépp yokk nag. am na yàlla may ñu am coupe bi lu ñu seetlu tout le temps moo la bàyyi ci équipement ko parce que jógewu foofu yow sànc bi lañ la xamee. ñu ñaari at a ngi nga toog reste ci équipe Manko lan moo ko waral quoi lan la ban lan moo la fa impressionné ba nga toog ci équipe bi. dara c'est juste dama war a jël coupe ba pare foofu doo koy dem. loolu la rek mais yàlla ñu yàlla suturaal rek jàppale ñu. Secret Vignal lan la ci terrain bi ba bal bu mu yor rek day yaakaar ni góol bi moo leen moom fu mu dóor rek mu dugg lu xew. ah fit rek ak jël décision la rek. Ah. voilà loolu kasa la. ngeen am seen deuxième exempté. troisième ngeen wara a ngeen wara a dégo euh dégo euh, est-ce que préparation bi dina gëna dina dina dina dina dina gëna a baax. Ah, en tout cas dal dara yombul. match de poule da ngay gagner dial te incha allah si yalla yàlla yàlla na yàlla jàppale ñu gagné match am nañ setlu jour yi say compagnie de guerre yi chaque fois ñuy blessé ci terrain bi lan la entraînement bu baxul la wala entraîner ba claquer gis nañ ay blessures yu bari sa gaay di blessé ñu leen di génne lan lan moko war quoi entraînement yi la wala lan non xamna entraînement yi rek terrain bi dafa metti te bu tawé tamit dañuy entraîner lolu kassa la te souf ci tamit dafa 10 mhm. waaw ñu lay gërëm di la sante jërëjëf gis ngeen tay jéxal nañu suñu journée bu ñëk fii ci stade Amadou Barry euh, ngeen gis tey journée bu spéciale bu fi amoon journée bu neex bu riche ci diggante Alliance ak Fadia Guentaba ñoo doon joué Alliance gagné na ko 4 buts à 1 diggante Manko Knicks ngeen mu demee yéen a ko doon suivre en direct Manko gagné na ko 1 1 1 à 0 bii bi ci première mi bi 43e minute Ve Ndiaye moo ko dugal euh, ngeen gis bu baax liñ leen waxoon ci Lougaré nawetaan Lougaré nawetaan rek du ñu bàyyi dara dinañ incha allah rabi lépp lu ñu mën dinañ ko def. pour mën leen a satisfaire yéen ñi ñuy seetaan ñu ànd ak la jeunesse comme ni ñu ko waxee rek fii ci stade Amadou Barry lu fi xew ci wàllu nawetaan di ngeen ko suivre en direct match yi ko suivre ngeen gis réaction yu am solo yu am fii ci stade Amadou Barry Lougaré nawetaan ci kanam Lougaré ca kanam à beneen beneen yoon incha allah.